loolu loolu yakarna de dafa bokk ci man parce que man jeune la sama carrière yëpp ci jeunesse laa ko def ci mouvement associatif motax bi mouvement associatif bi waxé né nañ dañoo bëgg ma ñëw jàppale leen ci affaire nawetaan yi ñu commencé ko woon ci Ndofane dem diko muy law bo dem commune keur Baka bo dem commune Kër Socé ñu dem ba yag ñu né lan mo téré tay ñu tok imaginer benn champion league bo xamné day regrouper les communes du département les zones du département tay ñu nekk dans 11 zones du département avec 16 équipes qui compétir la Ligue des champions loolu dafa bëgg dañoo dañ vraiment une solidarité entre la jeunesse parce que mouvement qui est euh, yi ñu def tournoi bi ñu def tax na ña nga xam ne ñu ngi nous Gandiaye ñu ngi vraiment amuñu ce brassage euh, sportif là amuñu avons ce brassage là dans le cadre de leurs activités Nous avons ñu créé une ligne interzonale, nous avons ñu ngi avons ñu ngi participer développement vraiment intégré du sport et de la jeunesse au niveau du département de Kaolack Lolo Monuki, nous sommes ñu nekk ci troisième édition troisième édition bi nous koy def ren def ko daaw def ko Et vraiment nous na loo xam ne engouement bu am solo lolo rek motivation la parce que nous dañoo bëgg les département yëpp Bolo autour de l'interzonal et autour du tournoi de la Ligue des Champions comme nous dem fenn nous dem fait, nous ferons regrouper les xam les gens qui ont fekk si ci fête bi nga actuellement am nañ projet yoo xam ay projet pour accompagner les les les jeunes dans l'emploi lo ñu ngi koy togg te yaakaar naa ne incha allahu rabi yàggatul danañ teg seen loxo loo xam ne vraiment dana nekk loo xam ne dana leen jàppale parce que aussi li mën a am mooy nit ki mënoo ko chaque fois utal ko fu mu dugg un emploi salarié il faut de l'initiative privée te ñu loolu lañ gëm dañoo gëm ne suñu jàppalee jeunes yi ci li ñuy def mën nañ ci am vraiment loo xam ne xëy la xëy du toujours état moo lay jox ba entreprise moo lay jox mais l'initiative prise également dafa nekk loo xam ne lu am importance la et dañ koo dañ koo gëm loolu nekk na ñu ngi ciy taxaw euh, na euh, ñu ngi taxaw ci ay utal peut-être ñi nga xam ne dañoo soxla permis ñu utal leen ay permis ñi nga xam ne ay projet la ñu jéem a xool naka lañ leen accompagner dans la formulation de projet pour les faire financer soit par l'agence euh, nationale pour la promotion de la jeunesse de l'emploi des jeunes mooy ANPEJ sinon également la DER yooyu yëpp c'est des c'est des des guichets de financement yo xamné vraiment ñu ngi ciy waxtaan le conseil départemental également amna ay guichets de financement yo xamné ñakul ñàkkul danañ leen jege su ko defee ñu xol naka lañ mëna défé accompagner leen ñu def ay apport su ko defee ñu jàppale ñu également ci jeunes yi nga xamné ne nek la Laguem ñoo nek également dans le département. suñuy wax bilan wax ngeen né ndax ma ngi ci yenen domaine tay Ndofane su amé 5 km addiction d'eau yalla ak Cheikh Ndiaye Ndofane su amé financement femme d'une hauteur de 3 millions ba paré ñu dem lijjanti leen ay DER ñu dugal ci lu mot 10 millions ci DER ci jeunesse ak femme Ndofane yalla ak Cheikh Ndiaye tay suñu démé bo ce secteur religieux ay gàmmu Baye Dramé ak ñooñu fu mu toll balaa ñuy wo ken woma mais amna lutax suñu démé également côté jeunesse liñ ñu fiy def ni chaque année muy 3 troisième édition mais ken mosu ko fi def maire organiser ay finance mosu fi def kon nak suma amé lolu diko def bir commune Ndofane am ci bilan bo xamné suma nexé ma ma ma ma ma ma woné bilan bo xamné ne mbaa ma exhiber bilan bo xamné maire ci bopam defuko su ma neexee nag ma ne commune Ndofane soxla naa ko. kenn moomu ko te su ma neexee ma ne damaa bëgg a doon maire Ndofane.